nan ngay changé baat yi jële leen ci ay melokaan yóbbu leen ci melokaan yu wuutee jële leen ci masque yóbbu leen ci yeneen masque yu wuutee ngir topp maanaa yu wuutee yi maanaam nan ngay changé baat yi pour am maanaa yi nga soxla loolu mooy saf loolu moo doon lubbu darsu bu njëkk ba maanaam darsu bu njëkk ba boo doon xool li ci gën a seer mooy nga xam loolu yeneen tamrin yëpp pour dëgëral sa làng la nga xam yenn baat yi waaye pour nga gën a comprendre ni ñuy changé baat yi ndax maanaa yu soppeeku yi loolu moo taxoon mu andi ko waaye liy xolu darsu boobu mooy nga xam ne sarfu mooy xam-xam bi day jàngal nan ngay changé baat yi ngir am maanaa yi nga soxla tey darsu saani bi ñu ngi jàng sarfu googu ñu jàngoon ci lan lay dugg ak ci lan la du dugg daf ci am yenn baat yoo xam ne du soppeeku am yenn baat yoo xam ne dafay soppeeku loolu loo ciy déggee mooy baat yi soppeeku seen maanaa mooy soppeeku loolu waral baat yi di soppeeku amma yu dul soppeeku seen maanaa benn la du changé moo tax baat yooyu du changé darsu saan yi darsu ñaareel ba mu ngi jàng maa la nga xam ne yeddu xuluhu dina ci dugg a sarfu sarfu woo maa ak li nga xam ne laa yeddu xuluhu sarfu du ci dugg darsu ñaare bi dafay jàngale lii sarfu di dugg ak li nga xam ne sarfu du ci dugg jàppal ne ñaari façon fenlu mu am fenlu boo xam ne mën naa am jamono bu passé ak jamono bu teew ak jamono buy ñëw maanaam mën naa am maadi mu daaroo amru kooku dafay nangoo soppeeku parce que maadi ak mu daaroo am amru bokkuñ maanaam bu dee fenlu bi mën naa tekki jamono bu passé mën naa tekki jamono bu teew mën naa digle baat boobu fenlu boobu dafay soppeeku parce que jamono bu passé ak bu teew ak digle du benn su fekkee fenlu bi nag jamono bu passé kese lay tekki kooku du soppeeku moom la tuddee al afaalu al jaamida fenlu yu way yi mooy fenlu yi nga xam ne jamono bu passé rek lañuy sa lañuy la ñuy tekki kooku duñ soppeeku parce que benn maanaa lañ yore kon baat bi benn tëggin la yore du changé bu dee ismu la jàppal ne daf ci am ismu yoo xam ne mën nañoo tekk kenn walla ñuy tekki ñaar wala ñuy tekki mbooloo benn baat bi mën nga see tëgg kenn tëgg ci ñaar tëgg ci mbooloo ismu boobu dafay soppeeku am ismu yoo xam ne moom la muy tekk rek lay tekk bu dee kenn kenn rek lay tekk bu dee ñaar ñaar rek lay tekk mënu tekki kenn bu dee mbooloo mbooloo ma rek lay tekk mënu tekk ñaar mënu tekk kenn isim yooyu duñ soppeeku isim yi soppeeku na moo tudd al asmaul mutamakkina isim yi nangoo soppeeku isim yi soppeeku moo tudd al asmaau xayrul mutamakkina isim yu nanguuta soppeeku fenlu yuy soppeeku mooy al afaalu mutasarrifa fenlu yuy soppeeku fenlu yu nanguuta soppeeku mooy al afaalu al jaamida fenlu yi wayi amma xaraf xaraf bu nekk benn maanaa lay teg kon xaraf boobu du changé xaraf benn du si changé parce que maanaa xaraf yi duñ changé te baatu arab yëpp jàngoon nañ ni fenlu la ak tur ak xaraf fenlu bu ci nangoo changé jëm ci maadi yi mu daaru amdu dafay soppeeku fenlu boo xam ne ni benn rek maanaa rek la mën a yore kooku du soppeeku isim boo xam ne mën naa tekk kenn ñaar mbooloo dafay soppeeku isim boo xam ne lenn rek la mën a tekki du soppeeku xaraf yi duñ soppeeku jeex na daxala dugg na am amsilatu li mooy yi daxala dugg na al muslimu julit bi al masjida jàkka ja daxala bu paase la dugg na ba pare yadxulu dana dugg al muslimu julit bi al masjida jàkka ja kooku jamono buy ñëw la wala jamono bu teew loolu dinañ ko jàng ci naxu mu daaroo mën naa tekk jamono buy ñëw wala jamono bu teew yeddu xulu mën naa firi dana dugg wala muy dugg al muslimu julit bi al masjida jàkk udu xul duggal al muslimu eeyow julit bi al masjida jàkk léegi xoola baatu daxala nekk na daxala yeddu xulu udu xul baat bi changé na parce que maanaa yi bokkut fii dugg na lay firi fi dana dugg fii duggal moo tax baat yi dafa changé parce que maanaa yi bokkuñ su ko defee fexlu bu mel noonu mooy al fexlul mutasarrif fexlu bu nangoo soppeeku xoolal niama baax na bi sa bon na lay sa nekkut yëpp ay fexlu lañ mais fexlu lañ yoo xam ne amuñ mudaare amuñ amr comme ni daxala amee mu daaroo mu yedd xul dana dugg mu am ru udd xul duggal fi'l yii moom amuñ mu daaroo amuñ amru neex ma baax na rek lay tekk bii sa bon na rek lay tekk lay sa nekkut jeex na mënoo wax dana baax mënoo wax baaxal mënoo wax dana bon mënoo wax bonal mënoo wax ne dana ne dana nekk mënoo wax ñàkk la nekk lay sa rek la bii sa bon na rek neex ma baax na kon fi'l yu mel nii dul soppeeku ñoom lañ tuddee al afaalu al jaamida fi'lu yu way yi yu way yi nga ñëw ci ismu yi al mujtahidu góor góorgóorlu bi mahbubun kuñ bëgg la al mujtahidaani ñaar ñuy góorgóorlu mahbubaani ñaar ñuy bëgg lañ al mujtahiduuna mbooloo muy góorgóorlu mahbubuuna mbooloo muñ bëgg lañ al mujtahidu kenn la al mujtahidaani ñaar la al mujtahiduuna mbooloo la mahbubun kenn la mahbubaani ñaar la mahbubuuna mbooloo la ngeen déggee si ne su fekkee dangaa ngaa tudd kenn la cee laaf na nekk kenn xabar ba na nekk kenn boo tuddee ñaar la nga baat ba nga cee teg na nekk ñaar boo tuddee mbooloo baat ba nga cee teg mbooloo lay doon loolu dinañ ci gën a leer su ko defee kon al mujtahidu ak mahbubun yëpp dañ isim lañuy soppeeku parce que al mujtahidu jugee na ci kenn dem ci ñaar dem ci mbooloo mahbubun jugee na ci kenn dem ci ñaar dem ci mbooloo kon isim la buy soppeeku parce que maanaa yi bokkuñ dégg nga bépp isim bu nangoo soppeeku rek isim bu ñuy i'raab la isim bu ñuy i'raab mooy boo xam ne nii mën na mën nga koo rafaa comme dàmm nasab ko jar ko isim bu dee mujj gi day soppeeku rek isim boobu mën naa dem ci kenn ñaar mbooloo boo comme mën ngaa wax jaa dikk na al mujtahidu aju góorgóor gi al mujtahidu nga ne raaytu gis naa al mujtahida aju góorgóor gi marartu romb naa bil mujtahidi ci aju góorgóor gi isim boobu rafaa na maanaam dàmm na nasab na maanaam fatxa na jar na maanaam mujj gi kasra la kon isim boobu dañ koy inraab lépp lu ñuy inraab nag dafay soppeeku dafay soppeeku mooy mën naa nekk kenn ñaar mbooloo amaa isim yi nga xam ne dañ leen di binaal mooy yi nga xam ne seen mujj benn masque lay am du changé yooyu ñaareel seen maanaa benn la yooyu du soppeeku comme allazi ki nga xam ne isim la waaye baatu allazi mënul changé kenn rek lay teg noonu lañ ko tëggee man ka nga xam ne mën naa tekki kenn mën naa tekki mbooloo mën naa tekki dégg nga mm, euh, kenn mën naa tekki mbooloo waaye baat bi nga indi ci kanam moo la koy xamal jaa dikk na mën naa daytuhu kenn la boo nee raaytu gis naa mën naa daytuhuma ñaar ñi man ñaar la tekki foofu waaye nag baat bi nga ci kanam moo la xamal ne ñaar la raaytu gis naa mën naa daytuhum ñi ma woo kooku mbooloo mi nga indi ci kanam moo la xamal ne mbooloo la waaye man moom mën naa tekki lépp kenn ñaar mbooloo su ko defee moom baat yi du soppeeku parce que moom am ci boppam euh, dafa man a tekki kenn ñaar mbooloo te am na luy wane ne kenn lañ ci nam wala ñaar wala mbooloo mooy lay ñëw ci kanamam parce que man mënoo ko andi te andi woo jumla bu ci topp jumla boobu nag moo lay wan man maanaa kenn la yore fii wala ñaar wala mbooloo moo tax baatam ci boppam du changé parce que maanaam leer na mata kañ dafay laajte isim la dafay laajte isim yi laajte duñ soppeeku mata rek ngay wax man ak lazi ak mata noo leen mën a dugalee ci baatu arab yi du tax mu changé jumle bi noo ko mën a rabbee lazi rek ngay wax man rek ngay wax mataa rek ngay wax comme que mujj changé maanaa yi ñaareel du ñuy changé du ñuy soppeeku looloo waral seen baat changé kon lazi man mata ay isim lañ waaye isim lañ yoo xam ne duñ soppeeku parce que seen maanaa du changé yooyu mooy ism yi binaal binaal nag boo ko déggee mooy loo xam ne mujj ga du changé lazi lazi rek lay doon man man rek lay doon mata mata rek lay doon su ko defee léegi-léegi da nga gis allazaani ñaar ñi nga xam ne ak allazina mbooloo mi nga xam ne a ah, borom xel mën naa wax ne waaw kon kii lazi changé na parce que def nga ko allazaani def nga ko allazina ñu ne la déedéet allazi kenn rek lay tekki allazaani baat bi dañ koo tëggee noonu muy tekki ñaar mais nekkul ne allazi moom lañ xotti def ko allazaani allazaani moom moom baat la boo xam ne dafay tekki ñaar waaye nag wuñ ko fenn allazi ne it noonu lay preuve mooy mooy noo wax ne jaa a dikk na allazuuna ñi nga xam ne lazina rek la ñuy wax te bu doon da nga koo xooti def ko jamoo def ko mbooloo allazuuna day mën a nekk bu rafaaye bu nasabee lay nekk yaa ak nuun dégg nga allazaani ñaar ñi nga xam ne gis nga yaa googu yaa gi nekkoon ci allazi nekku foofu lazaani rek nga wax bu doon allazi nga def ñaar da nga naan allazayaani waaye allazaani rek nga wax kon allazaani moom baatu boo xam ne buy tekki ñaar allazi baatu boo xam ne buy tekki kenn alladina baatu boo xam ne buy tekki mbooloo waaye nekkul ne baat bi lañ changé def ko ñaar def ko mbooloo moo tax yooyu dañ leen binaal kon duñ nangoo soppeeku sarfu du ci dugg min jógee fii ci albaa mooy firi dimbali ko ilaa mooy firi jëm ala mooy firi kawe yi ay lañ seen maanaa yi du changé moo tax baat bi du changé seen maanaa du changé motax bat baat bi si du sant kon qaida bi rek moy eh, misal rek misal yi moo lay jàngal ne bu nanga am madi mudaaru amru moy fenu bu soppeku fenu bo xamne ben place rek lay maadi rek lay am kooku du soppeku wala mu am mudaaroo kese kooku du soppeku wala mu am amru kese kooku du soppeku den bu de maadi kese lay am du soppeku bu de mudaaroo kese lay am du soppeku bu dee ambre kese la am du soppeeku moom nag yi am maat rek la indi misaal pour wan ne la bi daal bu dee benn melokaan lay sax du soppeeku neex ma baax na maat kese la bii sa bon na maat yi kese la lay waaye boo waxoon uffin cëm uffin mooy atadajjaru maa ngi xat kooku ismu fi'il mudaari du du soppeeku te te ko fi'il mudaari la wala nga ne wala nga ne dégg nga dégg nga ko alquran andee sax ut fil ñëw na mooy atadajjalu way way ka annahu laa yaflul kaafiroon way mooy ajabu dégg nga loolu du soppeeku waaye loolu feelu mu daara la dégg nga kon isim bi bu fekk fexal bi bu fekkee maadi kese la mën a doon wala mu daara kese la mën a doon wala amru kese la mën a doon kooku du دوسا فعل اسم فعل أم بلن ولا اسم فعل ماري ولا اسم فعل مدارة آمين ما يفري استجب نانغول آمين اسم فعل لوا اسم فعل أم آمين ما استجب نانغول سنيا سوكا دفع موم دوسا فعل بس كفعل أم رغل من رغل وي ما يعجب دنا يو أفن ما أتدجرو معي خط كوكو فعل مدارة رغل أمون ماري أمون أمون نعم باخنا kooku fenn maa di kese la amul mu daara am yooyu duñ soxla yooyu bëri na ci arab ismu fenn lañ koy tuddee yooyu danañ jël ay darso allazi man mata yooyu isim lañ yoo xam ne seen mujj masque yi du changé kon jëmmi baat yi tamit du changé isim yi ñuy la duñ changé al al mujtahidaani al mujtahidoona fenlu lañ yoo xam ne seen mujj ga mën naa soppeeku si rafan dem ci nasab dem si jàpp kon seen baat yi mën naa jógee ci kenn dem si ñaar dem si mbooloo moom max maxbubaani maxbuboona ñoo yem amaa xaraf yëpp yem benn du si soppeeku ndax xaraf benn maanaa rek lay yor pourtant xaraf léegi-léegi nga gis mu yore ay maanaa yu wutee benn xaraf léegi-léegi mu yore ay maanaa yu wutee waaye maanaa bam mu ci yor boobu kese la mën a yor te jumla bi mu dugg moo lay xamal ne maanaa bii kese la mën a yor looloo waral du soppeeku tey من داي فيري جوغي واي بو واخي ني خرجت جننا من المسجد جوغي تي جاكي واخين بي موي خمال ني فوف من مانا جوغي كيس لا يوري كون جيرول بات بي سوبر اما سو فكه ا لي لي مو فيري بيان ليرال منك بيان منك بيان لي تبيين بور ليرال نيكي غاني دنگو امم دنگو من البيان موي من غي ليرال فاجتني بو رجسا القران واخناكو فاجتني بو رجسا موي تولين صوبي بان صوبي من من من من الاوثان شي قرمي دا غاي ليرال بان صوبي لفوف من فوف لتبيين لا فور ليرال بان خيت صوبي لا نيو وخ لي لي مو نيو نيك تبعيد من def maam jëlal lenn la la bëgg wax comme nga ne xus jëlal min a daraahimi ci dërëm yi ay jëlal lenn ci dërëm yi mais loolu façon waxin bi moo sax moo lay xamal ban maanaa la min yore fii kon xaraf nekkul ne xaraf boo gis rek benn maanaa la yore waaye maanaa ba mu yore jumla bi moo koy xamle comme soxluwuñ changé baat bi pour mu xamle ko amaa yeneen bi mën koo xamle foo nga changé baat bi pour mu xamle ko mooy ismu yi ñuy kon kooku foo baat bi changé pour ñu xamle ko moo tax sarfu du ci dugg fi'lu yi am maal yi mu am amru jumla bi mënu koo xam la xamle foo nga changé baat yi pour ñu xam ko moo tax muy soppeeku di am maadi mu daaro am yi di soppeeku ci maadi bi ci mu daaro ci ak ci amru amma ismu yi nga xam ne ni nag eh, dégg nga yu ñuy binaal la yooyu moom jumla bi mooy tekki maanaa ba loola waral du soppeeku xaraf yi tamit jumla bi muy dugg mooy tekki maanaa ba loola waral du soppeeku te su yoree benn maanaa ci jumla maanaa boobu kese la mën a yore moo waral moo waral soxlawuñ baat bi di changé mais tekkiwul ne baat bi benn maanaa boobu kese la yore moom xaraf bi dégg nga su ko defee mu ñëw ci albaxsu bi istamala lamboona haatil amsalatu yeneen misaal xalaa afaalin ci ay fi'lu wa asmaayin ak ay tur wa xurufin ak ay misaal yi ñu jàng am na fi'lu ismu xarf te loolu mooy baat arab bi fa min haadil kalimaat yi bokk na ci ne baat maa nga xam ne la xiqaa dana ko yëg ak taxyiru soppeeku wa mina am na ci ñoom maa nga xam ne la may taxayir du soppeeku baat yi am na yuy changé am na yu dul changé fa inna fi'lu daxala naka fi'lu daxala mine taayifatil ula ci kuréel bu njëkk bi taxayara soppeeku nag minel maadi jugee ci maadi ilal mudaaroo jëm ci mudaaroo wa ilal amri jëm ci amru li annoo ndax moom fi'lun fi'lu la mutasarrifun bu nangoo soppeeku bi xilaafi ne ama wuuteeg baatu ne ama baax na wa biisa ak bon na wa laysa ak nekkut fi taifati saaniya ci kuréelu ñaareel gi allati bi nga xam ne baqiyat des na ala suwariha ci seeni melo neema bi sa lay sa changé wuñ seen melo kan rek benn la walam yamassaha laalul ko taxiiru soppeeku li annaha ndax ñoom mooy neemaak bi sa lay sa afaalun ay fenlu lañ jaamidatun yu way yu way mooy yoo xam ne baat yi si boobu duñ soppeeku xeyru mutasarifa nangu ñoo soppeeku وكلمة متحد بعد متحد أجي غور غور لا نقلت تخل نكو من المفرد جوجي تي كانو الى المثنى جيم تي نيار ويل الجميع جيم تي مbolo ولا هيقا ييغ نكو التغيير سوبيكو ناخ جوجي تي كانو متحد لا مو ديم تي نيار متحدان مو ديم تي مbolo متحدون كون سوبيكو لوتا مو اسم تور لا متمكن بو نانغو بخلاف كلمات الذي ووتك بات الذي أجمن أجمتا فإنها نكن يوم لازم تقونا سورها سيري ملو لأنها نحن غير متمكنة نمو يوسفيكو نمو يوسفيكو كن لا تتغير بالإنسان والقسم الأخير قد يمجبه مؤمن أك إلى أك في أك على أك با حروف أي حرف لن تلازم من ينتقو سورها سيري ملو أبدا بفو فيما تقدم تلجيتو kon fa bi maa taqaddama kon ci la jiitu naarifu la ñuy xam anna taxyira naka soppeeku innama yaxaqu dana yéegee al asmaa tur yi al mutamakkina yu nangoo soppeeku yi te mooy isim bu ñuy inraab wal afaalu ak fiilu yi al mutasarrifa yu nangoo soppeeku yi te mooy fiilu bu mën a am maadi mu daarul amr doonal afaalu waris fiilu yi al jaamida yu way yi te mooy yi nga xam bu amee maadi do am mudaro do am amru bu amee mudaro do am madi do am amru bu amee amru do am maadi do am mudaro wal asmaaw ak turi yi xeyrul mutamakkina yu nangu du soppeeku yi te mooy tur yi ñuy binaal yi nga xam ne mucc du du changé fataxa rek lay doon wala dam rek wala kasra rek wala musukoo rek yooyu ñaareel seen baat soxlawut bat bi soppeeku pour ñu xam maanaa bi jumla bañ dugg moo lay xamal maanaa kon seeni baat même bu maanaay changé it baat yooyu du soppeeku du soppeeku ndax wuñ baat bi soppeeku pour nga xam maanaa bi mën xam maanaa bi te baat bi du changé te li taxoon ñuy changé baat bi mooy buñ ko changé wul maanaa bi du leer te fii boo ko changé wul tamit dana leer loolu waral isim yooyu ñuy binaal duñ leen changé wala xuruf ak xaraf yi duñ ko changé ndax lan ndax xaraf maanaa bi bu changé it di ko xam ci biir jumla loolu waral jarul ngay changé jëmmi arab bi pour ñu xam ne yoon bii maanaa sangam lay joxe ndax bu changé jumla bi mu dugg moo la koy xamal loolu waral changé wuñ baat bi ndax li yóbbee arab muy changé baat yi pour maanaa yi leer mooy ne bu changé wul baat bi maanaa bi du leer amma baat yi nga xam ne boo leen changé wuyu seen maanaa danañ ko xam soxla wuñ changement xaraf yi noonu lañ mel isim yi ñuy binaal noonu lañ mel fi'l yu way yi noonu lañ mel xulaasa lii tënkin la يدخل دنا دوغ صرف صرف هل الافعال المتصرفه تي فعل يو سوبيكو لي موي قاعده بي مثلكم دخل دوغنا يدخل دنا دوغ دخول دوغل يوي اي فعل لا ينغو نانغو سوبيكو ويدخل دنا دوغ هل الاسماء تي توري المتمكنه ينغو اعراب بوين قولي تي سوف سوف dana leen wax ne al ismul mutamakkinu isim bu nangoo inrab wal muarab mooy isim bu ñuy inrab wala nga ñaari benn la wal mu'arab mooy bu ñu arab mislu comme tilmisun benn élève tilmisin ñaari élève talamisun ay élève loolu soppeeku na jógee si di mu daara am jëmmi baat bi si boobu moo changé mu dugg si jumla baat bi si mooy changé pour nga mën a xam ne maanaam bii lañ si nam bu changé wul doo mën a xam maanaam kon loolu foofu ñu changé ko walaay jiri du daw a sarfu sarfu maanaam du dugg alal afaali ci fenlu yi aljaamila yu way mislukum nee ma baax na kooku maa di rek la lay sa nekkut kooku maa di rek la bi sa bonna na kooku mu daar kooku di rek la yooyu duñ soppeku ndax ñom ben rek lañu yore ma di kese mo ñom mana maanaa sax lañu yore ñom ma di kese duñ duñ soppeku bu doon mu daaroo kese la comme uffin muy fi at lëjjëru ma ngi xat ba tey benn maanaa rek la du changé bu doon amru la comme amin muy nangul ñaan dégg nga kooku benn maanaa rek du du soppeeku wala nga ne alayka bi nangam mooy ilzam nangam taqool ak loolu kooku benn maanaa la yore du soppeeku jële maanaa fel amru la alayka mooy takol waaye maanaa fel amru la waaye du soppeeku dégg parce que benn kon ism fenlu yu way yi ñoom ñoom benn maanaa rek lañu yore la ma lay wax ne am na maanaa yu bëri mooy xaraf yi waaye seen maanaa yu bëri yooyu jumla yiñ dugg moo koy wane moo tax soxla wu soppeeku wala isim yi nga xam ne ni dégg nga ñoom du ñuy soppeeku comme lës yi mën naa tekki kenn léeg-léeg mu yore ñaar léeg-léeg mu yore mbooloo waaye lës yi moom jumla ba mu dugg ak baat yi sax moo la koy xamal mais nekkul ne baat yi baatu lësi bi lañ xotti def ko ñaar def ko mbooloo déedéet mais dañoo andi baat buy tekki kenn ak buy tekki ñaar ak buy tekki mbooloo te xotteewuñ ko ci moroom ka amma man moom maanaa bi mën naa tekki kenn ñaar mbooloo waaye man jumla bu mu dugg moo lay xamal changement bi kon soxlawut ngay changé baat ya dégg nga wala alal asmaa yi du dugg moom ci tur yi al xeyril mutamakkina yu nanguwuta inra bi bu ngeen xoolee suuf dana leen wax ne wala ismu xeyrul mutamakkin ism bu nanguuta inraab wala ism bu nanguuta sarfu woo moom al ismul mag mooy ism bu ñuy binaal danañ jàng ci naxu ne ism bu ñuy binaal mooy ism bi nga xam ne mujj ga benn maska rek lay taxoo benn fataa rek wala dàmm wala kasra wala sukkoon mais du changé di jugee ci fataa dem ci dàmm dem ci kasra loolu mooy ism boo xam ne dañ koy binaal bu ñuy binaal du soppeeku mislu comme haza kii léeg-léeg nga gis xaasaani mais xaasaani jëlee wuñ ko ci xaasa noonu la wuteeg mujtahidaani mujtahidaani lañ koo jëlee ci mujtahidun amma xaasaani jëlee wuñ ko ci xaasa xaasaani noonu lañ ko tëral rek muy tekki ñaar man ka nga xam ne allazi ka nga xam ne mata kañ ay na fan yëpp ay isim lañ waaye seen ay na mu jëm fataa rek la mata noonu la sukkoon rek lesi sukkoon rek man sukkoon rek xaasa sukkoon rek comme que seen mujj du changé baat yi ci boppam soxlawul muy changé pour maanaa bi leer baat yi ci boppam fañ dugg rek moo lay xamal changement ko ba mu des xaasa ak ñoom changé nañ forme baat bi mais nekkul ne formu ñaar bi dañ ko jëlee ci kenn ki mufrad bi xottuwuñ ko pour am ñaar pour am mbooloo déedéet araab moo jël haazaan yi def ko muy tekki di joxañ ñaar rek comme ni haazaa di joxañee kenn mais nekkul ne haazaa moom lañ xar parce que haazaa amoon na alif te haazaan yi gis ne gisoo fa alif gi nga xam ne cosaan loolu ci haazaa haazaan yi mu nun googu mooy alifu yokkal gi léegi an alif gi ñu ci dolli pour am musanna léegi an ana haazaa alifam nga nekku fa kon haazaan yi noonu lañ ko tëralee xaasa noonu lañ ko tëralee muy tekki kenn xaasa mi di tekki ñaar xaawulaay di tekki mbooloo gis nga sax gis nga xaawulaay mbooloo lay tekk mais niroo wut ak xaasa sax te bu doon mujtahidun mujtahidaani mujtahiduuna ba mu ko defee mbooloo baat bi moom mu ngi fa mais da nga da yokk pour mu tekki mbooloo mais xoolal fii xaawulaay ana ana zaal ga ana alif ga xaaga rek fa des moo tax kon arab dafa jël baat yu junj kenn di tekk di ñaar. di junj mbooloo waaye nekkul ne benn du nekk dañ koo xottee ca mufrad ma maanaam ci baat bu njëkk ba déedéet demeewul loolu moo tax ñoom changé wuñ seen forme baat bi changé wut changé wut haza allazi wala yajri du daw alal xurufi ci xaraf yi sarfu du dugg ci xaraf mislu comme fii ci ilaa jëm lakin na li fi nekk rubba danay firi bëri na illaa lu mooy illaa xarfu setti la comme mu ne la jaar arijaalo illa muhammadan ñëpp dikk nañ ba mu des muhammad lu mooy muhammad illa loolu lay jëriñ su ko defee yëpp ay xaraf lañ fii ila lakin na rubba illa ay xaraf lañ te xaraf moom benn maanaa rek lay tekki su maanaa ba changé maanaa boobu kese it la mën a joxe waaye baat jumla bi mu dugg mooy wane maanaa ba kon soxlawul baat yi di changé pour ñu xam maanaa ba dégg nga su ko defee loolu mooy xaayda bi tënk bi mooy xaraf moom léegi-léegi maanaa bi dana changé tekkul ne xaraf maanaa yi du changé maanaa bi dana changé mais nag jumla buy dugg rek bu mu dugg moo lay xamal ban maanaa lañ si na moom kon soxlawul ngay changé baat ba pour xam maanaam dégg nga am na ci yoo xam ne danañ changé baat ba pour mu joxe beneen maanaa wala wala boog changé nañ forme baat bi pour ñu joxe beneen maanaa mais nekkul ne ci baat bi tekki kenn moom lañ xotti def ko ñaar def ko mbooloo déedéet yooyu jël yu niroo rek ñu ne kii mooy tekki kenn ki mooy tekki ñaari kii mooy tekki mbooloo bay tekki kenn changé wut bay tekki mbooloo changé wut bay tekki ñaar changé am na isim yoo xam ne ñoom seen maanaa sax soppeeku dégg nga su ko defee yooyu ba tey Euh, soxla wuñ change baat yi di changé parce que maanaa yi du soppeeku fenl yi nga xam ni seen maanaa du soppeeku maa di rek lay tekki lu passé wala luy teew wala luy digle euh, yooyu tamit soxlawuñ baat yi du soppeeku parce que maanaa yi du soppeeku amma fenl yi nga xam ni nag dafay soxla maa yi mu daaru am lu te boo changé wu baat yi maanaa bi du leer yooyu ñoo nangoo soppeeku ak isim yi nga xam ne dafay tekki ñaar kenn mbooloo te boo changé wul baat bi maanaa bi du leer yooyu mooy soppeeku kon sarf dana dugg ci fi'l yi nga xam ne ni boo changé wul baat bi maanaa du leer maanaa leer dina dugg ci isim yi nga xam ne boo changé wul baat bi maanaa du leer ñaar yooyu ci lay sarf di dugg yi nga xam ne boo changé wul baat bi maanaa ak isim yi nga xam ne boo changé wul baat bi maanaa bi du leer waaye fi'l sarf du dugg ci fi'l yi nga xam ne nii benn maanaa lay joxe du dugg ci isim yi nga xam ne nii nanguta inrab dañ koy binaa dégg ndax ñoom même boo changé wul baat bi maanaa bi du leer mais maanaa bi dina leer même boo changé wul baat bi maanaa bi dina leer ci biir jumla ñoom ismu yooyu yañ ca changé nag nekkul ne dañ baat bi dañ xotti def ci ñaar mbooloo mais yañ ca changé yi tekki mbooloo baat la buñ jël muy tekki mbooloo kese yenn yi di tekki ñaar kese benn yi di tekki kenn kese su ko defee kon loolu nekkul ne jëmmi baat bi moo changé di leen niru ne jëmmi baat bi moo changé waaye bokkul xaraf yi tamit maanaa yi dana changé mais jumla bu dugg mooy leeral maanaa bi kon soxlawut ngay xotti baat bi pour xaraf bi pour maanaa yi di leer kon sarf du dugg ci fin yu way yi dugg ci isim yi ñuy binaal dugg ci xarf ñett la du ñaar yële lay dugg fenlu yi nga xam ne fa nangoo soppeeku mooy yi nga xam ne mën naa maadi mu daaru am lu te boo baat bi maanaam bi du leer fin sa fenlu yooyu sarfu la ji dugg isim yi nga xam ne mën nañ leen inrab mën nañoo rafaan na sab jar te boo changé wu seen baat maanaam bi du leer moom bu mukk isim yooyu day soppeeku ñaar day sarful dugg fenlu yu way ak isim yi nga xam ne leen binaal ak xaraf yi yooyu nga xam ne duñ soppeeku su ko defee loolu moo di darsu bi tamaarin bi guddut mën nañ koo jàng benn yoon balaa ñuy taxaw haas yi yi kalimaatun baat lañ min ha bokk na ci maana nga xam ne yadxuluhaa dana ci dugg a sarfu sarfu wa minha bokk na ci maa la nga xam ne laa yadxulaa sarfu du ci dugg fajaal defal kulla xismin bépp xaaj fii waadin ci xur xaasun bi aji jagoo bii ci moom tamrin bii mu joxe nag tamrin bu am solo la pour wane ndax dégg nga liñ doon wax wala déggoo ndax daf laa andi baat yoo xam ne sarfu mën na cee dugg ak baat yoo xam ne sarfu mënu cee dugg yi sarfu mën a dugg nag danga koy leeral ne baat sàngam sarfu mën na cee dugg ndax nàngam yi sarfu mënu dugg nga leeral ko ne baat sàngam sarfu mënu cee dugg ndax nàngam xaama jug na ndax mën naa soppeeku mu déet bu mënee am mu daara am rek mën naa soppeeku fii ci kooku xaraf la ndax mën naa soppeeku bii sa bon na ndax mën naa soppeeku subaakun benn fenêtre ben feneetar isim la ndax na soppé bu isim bu ma tudd wax ben wala ñaar rek xamal na man na am mbolo man na am ñaar lan harfu daq la harfu daq ndax man na soppé ko qatara rayna rayna ndax mën naa soppeeku neema ndax na soppé ko lam harfu daq la ndax mën naa waqaa ndax mën naa soppeeku haza lii ndax mën naa soppeeku halaka halkuna ndax mën naa soppeeku hatta harful haraf la harfu doyo lay firi harfu doyo nag mooy li nga xam ne lam dugg fale mooy doyo mbir ma akaltu samakata hatta rasaha lekk naa jën ba ba ci bopp ba xam nga kuy lekk bopp doo bàyyi dara hatta ci lu mel noonu lay dugg kooku haraf la ndax mën naa soppeeku zahaba dem na ndax mën naa soppeeku madrasatun benn école ndax mën naa soppeeku maktabun benn taabun ndax mën naa soppeeku saara dox na saara defoon nañ ko tamaarin ci yi paase ndax mën naa soppeeku macha dox na ndax mën naa soppeeku bi ci xaraf la ndax mën naa soppeeku min jugee ndax mën naa soppeeku ala ci kaw ndax mën naa soppeeku jannatun aljana ndax mën naa soppeeku dalwun siwo ndax mën naa soppeeku faarisun mooy ki war fas ndax mën naa soppeeku yii ndax mën nañoo changé wala déet yi ci mën a changé ngeen wax ko wax li tax li ci mënul changé ngeen ne mënul changé parce que lii moom moo tax iiti andil bi xam si kalimaatin si juróomi baat yadda xulaa dana ko dugg a sarf sarf bu bi xam sin ak juróom yoo xam ne laa yadda xulaa du ci dugg a sarf sarf wa rakib haa nga toggale ko fii jumalin ci ay jumla mufidatin yu am njëriñ da ngeen di juróomi baat yu nangoo soppeeku def ko ci jumla bu am njëriñ ak juróomi baat yu nanguutu soppeeku def ko ci jumla bu am njëriñ iqra jàngal haazil qitaata bi la dogit man li yéen ab diir summa jaal topp nga def sataran waahidan benn rëdd taxta maa ci ron li nga xam ne yadu xulu dana ci dugg a sarfu sarf minal kalimaati ci baat yi wa satrayni ak ñaari rëdd taxta maa ci roon li nga xam ne laay di xuloo sarfu du ci dugg da ngay jàng baat yi ab diir nee na nga setantal bu baax yi nga xam ne nangu naa soppeeku nga def ci benn rëdd yi nanguta soppeeku nga def ci ñaari rëdd mais yow yi nangoo soppeeku wax ko rek ne bii ak bii ak bii moo nangoo soppeeku bu nanguutu soppeeku nga ne bii nanguutu soppeeku jërul ngay rëdd mën nga wax bu la neexee it nga bind ko def ko rëdd waaye bi nangoo soppeeku moom nga def benn rëdd bu nanguutu soppeeku ñaari rëdd su la neexee baat boo wax nga wax nangu soppeeku wala nanguutu soppeeku baat boo laal nag moom faw nga wax nangu naa soppeeku wala nanguutu soppeeku fa kooku xaraf la fa gi xaraf la rësul hikmati bopp xam-xam ra'su ak hikmatu yeb da ngay wax nangu naa soppeekum déet llahi moy ragal yalla ah Allah nak mom ciolu bari mu ci ndax amna fuñ ko wala xottee wuñ ko fenn li ci gëna wër nak moy mooy wuñ ko fenn kon waxal ndax wala wa haraf la nahnu ñun bu damir la damir yëpp dañu leen binaal maanaam seen mujj du changé kon ndax baat yi dana changé mu déet isa bu fekkee isa xaraf la tadabbar naa setantal lañ tadabbara fi'lu maadi la waaye naa gi moom damir la damir am lu ma ci waxoon buñ setantalee alqur'aana alqur'aan alkarima bu tedd bi alqur'aan am na lu ci bàyyi wax wax na fan baat boobu mustaq la daam fu ko xottee alkarima bu tedd bi wajad naa fekk nañ wajada kooku fenlu la naa gi nag moom dameer la an na ne an na kooku xaraf la kasiiran lu bari dégg nga kasiir aji bëri am na fu ñu ko xotte léegi ci bari la min aayaat yi ci ay kawteefam day fekk na lu bari ci ay kawteefam min kooku xaraf la ayaat kooku jamu la fiiha ci dégg nga fiiha nekk na ci ay kawteef yooyu fiiha gi dellu ci alxuraan kawteef lay dellu gi xaraf la haa gi damir la xaddun ñaax هو اسمه ده حمنا فيم جيجينا على الخوف في رجل يلا على أي حرف له خوف نان مم اسمه ده لذلك نان رجل نان رجل رج رجل كوكو حمنا فيم جيجينا من الله على الخوف في رجل من الله يجي الله من حرف له الله مم لقنا غير قتهم كفن في سر يجي نبو في حرف له السر موت هاكو اسمه ده ولا على أن يتأمل فين وعرف له على على أن يه هوجي جملة أنهم قتبوا فالمسلم جلد فاجي حرف لا المسلم جلد اسم لا الكامل بمت اسم لا الذي ما يكنا قمنا الذي جانونا لن كي بنان يدعو دانا تك مخافة الله رجل يالله نصب عينيه تكنم ياري بتمي ولا نصب عينيه تكنم ياري بتمي من غاوه نو من غاوه نا نصب يكوه اسم لا ay nay gis moom def na ko ñaar waaye xaagi nag damir la ay nay mooy ñaar xaagi damir la taraaw da nga ko gis taraa ko fenlu la xoogi damir la laa yartaki bu du toggoo laa gi la yartaki bu fenlu la muharraman lu xaraam ismu la xattun mukk kooku dañ koy binaan xattun mukk dafay tekki jamono ju paase waaye dañ koy binaam zarfu la buy tekki jamono bu paase dañ koy binaam noonu rek la lay mel tu sawiru du taaral waaw gi xaraf la laa gi xaraf la tu sawiru fenlu mu daaro lahu ñee ko ñeel ko laam gi xaraf la xaa gi damir la nafsuhu kooku la ndax mën nañu wax ay bakkan gi damir la nag nafsuhu ixtiyaala xaqin sàcc xaq <coughs> ixtiyaala gun go bu nga jógee si ixtaala boobu isim la xaqun mën nañoo ay xaq wala ñaari xaq yaakaar na li xëyri yi ñeel ku moom laan gi xaraf la xëyru googu dégg nga isim la léeg-léeg ngi ñëw axyaar yeneen yi xaa gi demee la bal li fi nekk wakulil idraab la waaye noonu rek la mel dañ koy binam yaamalu dana jëf fenal mu daar jox doo du góor gu jox du mooy góor góor rek mën nañoo wax ay góor góor yooyu yëpp xaa gi damir la li maa ngir li nga xam ne laam gi xaraf la maa ngi ismu moo eh, eh, kii la moosuul la maanaam dañ koy binaal فيه لك نتي فاقي حرف لا هاقي دمير لا دمير اسم لما عارف كيف بنعم صلاح هو يولم دغ صلاح كوغو اسم لا ويرحم من في القوتين هاقي نك موم دمير لا وخيرو اجيوم وهاقي حرف لا خيرو كوغو اسم لا هاجي دمير لا خيرو يك da ngay changé man nga wax ay yiw su ko defee ma jàngat baat yi mooy faral su xikmati bopp xam-xam ma xaafatu laay mooy ragal yàlla wala xam nañu ne xikma mooy xam-xam bu jëriñ wala xam-xamu sëriñ bi sëriñ sëriñ bu weex sëriñ bu bu nekk si boobu seen biir moom bañ a tudd waaye moom xam na la mooy xikma wala xam nañu daata la bar naa buñ seetantalee alquran al karim alquran bi tedd bi wajat naa fekk nañ am na kaseer ne lu bëri min ayaati ci ay ayaam yaa nekk na ci xaddu neexal xaw fii ci ragal mi ne laay ci yàlla fi séri ci lu nëbb wala alaani tam lu feeñ kon muslimun kaamilu julit bu mat allazi mooy ki nga xam ne yadama dana teg maxaafata laay ragal yàlla nusba ayna yi ci kanam ñaari bëtami yàlla ñu ci yàlla boole taraahu da nga ko gis laa yertake bu toggoo mu xaramal lu xaram xattu mukk yàlla yàlla defal loolu walaa tusawiru du taaral lahu ñeel ko nafsuhu bakkanam ixtiyaala xaqin jël xaq li xëyri yi ñeel keneen ku dul moom yàlla ñu ko yàlla defal ba li fi nekk yaamalu dana góorgóorlu jox doo kem kàttanam li ma fii ngir la xam ne nekk na ci salaaxu yéwénam bu xeyru ak yowam jullit bu baax daal loo ko fekk rek dafay nekk lu baax ñeexal ko wala mu nekk lu baax ñeexal nit ñi waaye loolu loolu ci nekk yàlla nañu ci yàlla boole su ko defee jumla boobu danga koy jàng yii nangoo soppeeku nga wax ko yii nangoo du soppeeku nga wax ko léeg nga gis benn baat mu niru benn am na xaraf bu nekk xaraf woo lañ koy génne nga leeral na mu naa soppeeku wala déet kon loolu mooy di tamrin bi jàppal ne ci takk takk takk bi gën a yomb fexlu bu nar a jugee ci maadi yi mën a jugee ci maadi yi dem ci mudaaroo dem si amr fexlu boobu dafay soppeeku isim bu mën a jugee ci kenn dem si ñaar dem ci mbooloo isim boobu dafay soppeeku fexlu boo xam ne mënul loolu mënul am maadi mudaaroo amr alfi'lu boobu du soppeeku isim boo xam ne mënu tekki ñaar mbooloo baat bi mënoo koo xotti wut ci ñaar wut ci mbooloo ah isim boobu du soppeeku jële maanaa bi mën na loolu sax waaye bi duñ ko xotti ndax euh, jumla bu mu dugg moo koy wane waaye baat bi moom xotti wuñ ko isim boobu du soppeeku xaraf boo xam ne it dégg nga xaraf moom yëpp duñ soppeeku ndax xaraf yi soxlawu ñuy xotti seen baat muy tekki ñaar tekki mbooloo su ko defee xaraf yi ñoom ñoom ñëpp duñu soppeeku isim yi soppeeku nag mooy isim bu ñuy arab isim bu dul soppeeku mooy isim bu ñuy binaal xaw naa kii waaye yaakaar naa ku seetantal di nga xam in uridu ila islah mastantu ma tawfiqi illa billah alayhi tawakkaltu wa ilayhi unib wassalaamu aleykum wa rahmatullahi wa barakatuh